revue de presse bii ñoo ngi ci ànd ak Serigne Khadim Mbacke général Serigne Khadim Mbacke général nag sët la ci Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke nekk sëriñu Lasrar bu yàlla may Lasrar nag bu ñu ko waxee lépp a ngi ci moo xam wàllu noob ak wàllu ñaan sëriñ bi yàlla may na ko lool ci wàllu woowee waaye sëriñ bi dafa am ñetti jaaru yu doy waar ba ca njëkk nag mi ngi tudd mulku Suleymaan mulku suleymaan nag ñi yëngu ci lasraar war nañu koo xam mu nekk jaaru bu baax lool sëriñ bi am na yeneen jaaru yu doy képp ku jokkoo ak moom dina la ca jox ay leeral sëriñ bi nag yàlla may na ko lool ci góor ñi nga xam ne dañoo tëlee maanaam ñi dem ba mënatuñu ak ñi nga xam ne dañoo gaaw a yëg seen bopp nee na saafara bi mu lay jox ci kaw cin ngay taxaw sangoo ko foofu ngay yëgee sa bopp kon jokkoo leen ak moom waaye sëriñ bi tamit yàlla may na ko lool ci wàllu seet ak wàllu kubbeekaay ndax ngit nit ki kat pour ngeen jëflante faw mu seetal la ba noppi te wàllu seet ak wàllu ñaan ak kubbeekaay noobit yàlla may na ko ci lool moom Serigne Khadim Mbacké général wàllu nopp boobee nee na képp koo xam ne da nga am sa soxna wala sa coro boo ne ko benn mu ne la fukk boo ne ko toogal mu taxaw bu ngeen jëflantee dina dëppale seeni xalaat jubóole leen boo ne ko toogal mu toog boo ne ko nañ dem du ca teg baat sëriñ xaadim mbàkke général yàlla may na ko lool ci wàllu lasraar sëriñ bi nag képp ku bëgg a jokkoo ak moom ci numéro bii nga ko mën a jotee muy 77 341 67 67 77 341 67 67 képp ku jokkoo ak Serigne Khadim Mbacké général yal na sa aajo faju laata ñuy dooru vidéo presse bi ñoo ngi wéy ba léegi di leen présenté Sofascore Sofascore nag application la boo xam ne day yëngu ci wàllu tàggat yaram rawatina football képp ku ko bëgg a am nag ni ngay def lu yomb la da ngay dem ci commentaire yi wala ci description bi dina ñu fa def lien application bi nga jaaree foofe téléchargé ko ca jamono joojee sax yaa ngi dimbali King Ouse et Ngary TV waaye boo ko amee lépp luy programme soxal tàggat yaram rawatina football dara du la ca moo xam yi daw en direct ak programme yi ñu dëgmal kon daw leen ngeen téléchargé ko ñu door revue de bi dooree ko groupe Futur Média fekk fa record yéenekaay équipe nationale bu Sénégal rawatina ñancoo Sadio maane la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa Sadio qualifié les Lions moom Sadio maane nag bu Sénégal qualifié nañu ko ko santé ndax démb équipe nationale bu Sénégal bu Malawi la fekki woon ci match bu mitti lool ànd ak taw bu xaw a bari tuuti match bi dëgër lool ci équipe nationale bu Sénégal ci cëppaandaw ga ci la ñu am ab coup franc xëccoo Sadio Mané teg ko dóor ko mu dugg directement loolee tax Sénégal qualifié ci Coupe d'Afrique bi ñu war a jongante ci atum 2025 moom ñancoo Sadio Mané nag mi ngi wéy di bind taarix ci équipe nationale bu Sénégal ndax bu ñu xoolee li mu jongante lépp ci ay match ak équipe nationale bu Sénégal mi ngi toll ci cent onze match dugal na ca quarante six bit moom ñancoo Sadio Mané kon kenn du moom waaye équipe nationale bu sénégalit ñu ngi amal jaloore ci qualification Coupe d'Afrique bu ñu xoolee fukki at moo ngi nii éliminatoire maanaam qualification coupe d'Afrique Sénégal amut ca défaite match yooyee nag mi ngi toll ci trente match yoo xam ne jongante nañu ko vingt quatre victoire la ñu ca am six match nul amuñu ci benn défaite toll ci fukki at kon équipe nationale bu Sénégal mi ngi ci jaloore ci éliminatoire coupe d'Afrique nag la ñu wax. démb bi ñu jàkkaarloo ak mala wi ba noppi ki ñuy tàggat jamono ji tudd Pape Bouna Thiaw yëkkati na kàddu wax nee na démb de équipe bi dafa wane caractère maanaam dañoo wane fulla ju mat sëkk ca cëppaandaw ga nag ñu am dam lu ama am solo qualifié ci coupe d'Afrique bi ñu war a jongante ci atum 2025 loolee la Pape Bouna Thiaw xamle bu dee Kalidou Koulibaly moom wane na ne moom njiit dëgg la maanaam leader dëgg la muy capitaine u équipe nationale bu Sénégal ndax fulla ju mat sëkk la àndonoon ca mat boobee loolee la journal bii di record yéene kaay xamle journal bi tamit fàttewul équipe nationale bu Guinée Conakry rawatina Seyrou Guirassy jamono ji kenn mënu koo téye démb Éthiopie la doon jàkkaarlool duma ko duma yu mitti lool bal ñetti bal ci dara moom Serhou Guirassy ab duble la amal ca match boobe kon jamono ji kenn mënu koo téye moom attaquant Borussia mun bi. ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe Raphaël Varane mi bàyyi football bu yàggut la journal bi fësal ca wu njëkk wa journal bii di l'équipe nag dafa dalal doomu France bi ñu séq waxtaan bu yaatu mu wax ci jaar-jaaram ci football waaye wax na tamit li tax mu bàyyi football nee na football dafa mel ni résim te régime dafa am fu mu yem lu mu àttanul bu yàggee rek day yàqu loolee la le moom doomu France bi moom mii nag bàyyi na football naam nekkul mag yooye waaye li tax nag mu bàyyi football bokk na ci blessure bi nga xam ne da ko am ca genou ba maanaam ca omba lay yëg mitit loole sonal na ko lool faj na ko ba sonn nee na loolu bokk na ci li tax ma teel a tekki samay godaas bàyyi football ndax xam naa ne bu ma ko toppee rek ëllëg mën na ma jural lu mitti ci sama wàllu wér-gi-yaram loolee bokk na ci li tax ma teel a bàyyi football doomu France bi ñu naan Raphaël Varane moo xamle kàddu yooyu moom nag carrière bu baax la def ndax jël na ay coupe yu bari jaar na ci Real de Madrid amal fa ay jaloore waaye nekkul ni ci club boobee képp la jaar club bi mu mujjoon nag moo di Como nekk ci réewu itali ca Manchester United la nekkoon kontraam jeex tàkk mu jugee fa dem ca Como waaye footballut benn match ak ñoom journal bi tamit fàttewul Kylian Mbappé ay mbiram nag mi ngi wéy di jur coow ba léegi ci réewu Suède waaye mbir mi nag léegi mu leer ci wàllu Kylian Mbappé li ko waral moo di polisu Suède démb bi ñu yëkkatee kàddu bi ñuy wax tudduñu benn yoon Kylian Mbappé kon mbir mi léegi mu leer démb ci réewu Suède ca capital ba tudd mu bi police bi di wax tuddul benn yoon Kylian Mbappé waaye ba léegi nag mbir maa ngi wéy di jaaba jonge ba léegi njaw a ngi wéy di des xambin ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport Thomas Tuchel le surnal bi fësal ca wu njëkk wa it's Tuchel du kenn ku dul Thomas Tuchel Thomas Tuchel mooy tàggat équipe nationale bu Angleterre jubo ci lépp am na ci diggante fédération bi ak doomu Allemagne bi tey jii la ñu koy xaar mu jugee ci réewu Allemagne dem ci réewu Angleterre ñu matal mbir mi lépp mu xaatim fa contrat ba atum deux mille vingt sept at mu nekk ñu jox ko cinq millions d'euros jubo ci lépp am na lu mosul am nag dina am ndax doomu Allemagne mosul tàggat équipe nationale bu Angleterre Thomas Tuchel mii nag dina xaatim contrat ca équipe nationale bu Angleterre ngir tàggat leen moom nag miin na lool Angleterre ndax ay jamono daan na tàggat Chelsea def fa jaloore dana fa delluwaat nag waaye équipe nationale bu Angleterre lay tàggat ñoom xawri américaine Declan Rice Phil Foden ak yeneen gone ya fa nekk loolee daanaka mbir mi lépp yemb na te balaa yàgg dinañu ko officialiser bu ñu sukkandikoo ci Mirror Sport journal bi tamit ñëw na ci Ferguson Ferguson nag ku xam Manchester United di nga ko xam waaye kat dafa am lu ko lëkkale woon ak club boobee njiitu club bi ndogal li ñu jël moo di dagg ko mu di lan moom dafa nekkoon ambassadeur ca club boobee di fayee ko ab xaalis xaalis boobee mu doon fayee ko nag njiitu club bi ndogal li ñu jël moo di dagg ko dootuñu ko ko fay ndax njiitu club bi li ñu xamle moo di li ñuy génne ci xaalis di ko fere dafa bari lool kon li ñu ko doon jox moom Ferguson dañu koy dagg kon nag balaa yàgg dootul nekk ambassadeur ak waa Manchester United ñu jugee Londres Angleterre wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa AS Roma rawatina ki leen di tàggat di Jurix le surnal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom nag mooy wax ay kàdduy dëggam ca club boobe naam yàggagu fa waaye nee na club bii di AS Roma équipe bu mag la ñu am te ay njiit yu baax la ñu am bi ma dalee yor club ak tey jii mosuma yor club bu mel ni club bii di AS Roma ci wàllu organisation ak taxawu bu mat sëkk bi ñu ma taxawu na tamit ci gone yi muy tàggat ca club boobee nee na Pellegrini moom kenn du moom dafa mel ni yàlla astaghfirullah loolee la xamle moom Jurix nee na foo ko xool ci terrain bi da nga koy gis day daw di jàppale équipe bi yépp waaye man bëgg-bëgg bi ma am moo di muy taxaw ci wetu Dybala ñu ànd ñoom ñaar di doxal su defee loolee rek li may wax ni yéen ñëpp di ngeen ko gis loolee la xamle moom si ci fàttali yàggagul ca club boobee ndax Daniele De Rossi moo fa nekkoon doxalul ñu dàq ko indi ko journal bi tamit fàttewul waa Juve ñoom nag mën nañoo am attaque bu bees tàq bu ñuy jàkkaarloo ak Lazio de Rome match boobee samedi la incha allah ndax ki leen di tàggat tudd Thiago Motta ñett ñii lay xalaat ngir boole leen ca kaw ñu doxal muy Mbengola Timothy Weah ak gone gi ñu naan Yildiz jamono ji ci loolu lay xalaat moom Thiago Motta bu dee waa Lazio de moom li leen jaaxal du lenn lu dul blessure bi nga xam ne Guendouzi si am na ko dafa demoon ci réewam di France jëlee fa ab blessure bu mitti lool loolee tiital na leen ñoom waa Lazio de Rome tey jii la ñuy amal examen yi maanaam tey la ñu koy saytu xool ba xam blessure bi nu mu mel waaye jamono ji moom tiit ñu lool ca mbir moomee ñu jógee Corriere dello Sport de Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport waa AC Milan ak ki leen di tàggat di Fonseca le journal bi fësal ca wu njëkk wa cadeau pour Fonseca waa AC Milan li ñu bëgg moo di bu ñu yeggee ci weeru janvier ñu jox ko cadeau bu mag cadeau boobee moo di indil ko ñetti gan te ñetti gan yu mag lañu ka ca njëkk nag mi ngi tudd Sonatanta doomu Allemagne la ma nga ca Bayer Leverkusen di doxal jamono ji contrat bi ko lëkkale ak Bayer Leverkusen bu dara soppeekuwul bu saison bi jeexee dafa war a jeex tàkk waa AC Milan li ñu jàpp moo di bu ñu yeggee ci weeru janvier bu ñu ca defee tuuti xaalis mën nañu ko jëlee ca Bayer Leverkusen indi ko ci seenub club mu jàppale Fonseca mi leen di tàggat waaye nag li mu bëgg moo di défier ñaari club yu mag yi muy Inter ak Juve ndax ñaari club yooyee nekk ca tamit dañoo bëgg doomu Allemagne bii di Jonathan Tah waa AC Milan nag li ñu bëgg moo di xaatimal ko contrat yeneen ñaar yi moo di Fren Dëb Fren Dëb nag ma nga ca waa di doxal li muy def mën na ko lool keneen ki excentré la mi ngi tudd Beraldi moom ma nga ca sa Sassuolo di doxal ñett ñooñee la waa AC Milan bëgg xaatimal contrat jox ko cadeau doomu portegal bi leen di tàggat tudd Fonseca journal bi tamit ñëw na ci yi moom nag bëgg-bëgg bi mu am moo di yu mag yi leer di doxal comme ni mu koy amalee ak équipe nationale bu Italie ndax gone gi bu demee ci équipe nationale bu Italie ay match yu baax lay amal di doxal di dugal waaye gis nañu ne bu demee ci Inter dañu koy teg ci banc bi li mu bëgg nag moo di Inzaghi muy tàggat Inter di ko footballoo ci match yu mag yi muy doxal. ñu jugee Italie wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay équipe nationale bu Espagne rawatina seenu capitaine di Alvaro Morata le journal bi fësal ca wu njëkk wa quelle démb équipe nationale bu Espagne bind bu tooy xepp la ñu jox waa Serbie dañu leen dalal ca Cordoba duma leen duma yu miti lool ñetti bal ci dara jamono jii équipe nationale bu Espagne qualifié nañu ci quart de finale Ligue des Nations bi ndam loole nag nañu ko sante seen gone yi ndax bit yi tax ñu am ndam ñoo ko dugal muy la Laporte Alvaro Morata ba ca Alex Bayana match bi nag bi mu jeexee ki leen di tàgg tudd Luis de la Fuente wax na nee na man de bi ma ñëwee ci équipe nationale bu Espagne ak tey jii li ma fi amal ci ay bariwul maanaam erreur yi mu amal ci équipe nationale bi bariwul mën naa wax sax moom nee na amalu fa benn njuumte loolee la xamle moom Luis de la Fuente journal bi tamit fàttewul Kylian Mbappé jamono ji nag boppam dafa ubu ndax li ñu koy jiiñ da koo jaaxal lool moom Kylian Mbappé ci jëmmi boppam xam na ni deful waxul dóorul saagawul loolu jaaxal na ko lool bu ñu sukkandikoo ci journal bii di Marca yéenekaay ñu jugee marka yéenekaay jël AS yéenekaay équipe national bu Espagne la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa en quart avec honneur dem nañu ca quart de nation ba waaye mbégte ak bonheur bu mat sëkk lañu ca àndal li ko waral moo di démb Serbie la ñu dalal duma ko duma yu mitti lool ñetti bal ci dara démb nag équipe national bu Espagne dafa ñëw rek taxaw waaye da doon jàngal daanaka waa Serbie doxal ca match boobee trente tir Espagne am nañu ko am na deux balles de poteau waaye ki leen di góolul tudd Rajkovic doxal na ca match boobee waaye ci ci pandaw ga encaissé na ñetti bit moom góolu àll Ittihad bi démb def na lu nekk waaye munu ci dara ndax waa Espagne dañoo taxaw jëmbat fulla am fulla ju mat sëkk ca match boobee journal bi tamit ñëw na ci waa Barcelone Victor Font nag mooy wax Victor Font nag ci opposant yi la bokk moom day opposé wu maanaam dafa bëgg a nekk président ca Barcelone moom nag mi ngi wax ci ki fa nekk jamono ji tudd la Laporta nee na bëgg-bëgg bi mu am moo di wuutu ko foofee ca Barcelone te nee na bu ko fa wuutoo bu lëñbëtee ay mbiram dina fa gis lu yées lool xam ngeen ne José María Bartomeu ba mu nekkee ca Barcelone googee jugee fa bi Juan Laporta ñëwee dafa gis ay mbóot yu doy waar maanaam liggéeyam baaxul woon dara nee na man mii di Victor Fonto su fekkee maa wuutu fii Juan Laporta li may gis mooy gën a yées fuuf li mu gisoon moom jamono ji fi maria María wu nekkee. ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport équipe nationale bu Espagne la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa classifié démb Espagne da doon dalal Serbie dañoo ñëw rek nag leeral mbir mi lépp gone yi jëmbat ful la doxal dugal ay bit yu bari ñetti bal ci dara la match boobee jeexee bit yi am ca match boobe ñii ñoo ko dugal Laporte dugal na Alvaro Morata ba ca Alex Bayana ñu am ndam lu yaatu ci kanamu Serbie ñetti bal ci dara loole tax na dem nañu ca quart de finale ya ànd ca ak ki leen di tàgga tudd Luis de la Fuente loolee la journal bii di esport xamle ñu jugee esport jël Mundo Deportivo équipe nationale bu Espagne le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa continue la fête fet gi de day wëy ginnaaw bi ñu qualifié dem ca quart de finale Ligue des Nations ba li leen ko may démb nag du lu dul ndam lu am solo li nga xam